d'accord les pouvoirs euh, au Sénégal on a tellement donné du pouvoir au président de la République hmm. war nañu loxo le président de la République si vous voulez développer si le Sénégal veut développer il faut que nous génnee ay pouvoir nous ñu le président de la République ñu wàññi les il faut que nous wàññi le président de la République pour que yeneen institutions yi mën a am souveraineté tay bo xolé administration sénégalaise tout est politisé parce que dans les may le président de la république là. man je suis d'accord, je sais je fais partie des personnes qui veulent que ñu dans pour l'autre président qui va venir en 2024 pour ñu xol nan lañuy à travers si bu féké référendum wala lénen ñu wañi ñu constitution bi pour ñu wañi le président de la république man je suis d'accord pour en 2024 nous wàññi bu baax dans baax président de la république Nous mooy permettre y institutions yi mën a am souveraineté Nous avons du am nomination ba ci ay magistrat nomination ba ci ay cadre de de l'administration, administration du am ay nomination ba feneen ak Nous ñu carrément le président de la république c'est-à-dire que tant ko fenn avons fait ne yooyu nous avons ñu ne ko mais maintenant bu fekkee pour les maïsra mu am ay appel à candidature wala magistrat yi mën a fal à travers un jury indépendant boo xamante ne laalewul dara ak ak l'exécutif man je prends avec ça moi je suis je fais partie de la société civile yoo xamante ne ñoom wala ci ay nit ñoo xamante des visionnaires ñoo xamante ne euh, dañoo jàpp ni que loolu la ñu def dans ce pays pour mu mën a développer. mais tant que ñu ngi bàyyi le le président de la République mu nekk chef suprême de euh, de la magistrature Sénégal du mës a que justice Sénégal day continuer di narmelu parce que yow ku la abal bët fu ko neex ngay xoole voilà clair mais non mais Arfan euh, par rapport aussi à euh, li que xam que Modi, justement cette rencontre bien nga le président Macky Sall war amal ak li nga xam modi la général de euh, au menu des discussions la nga si de plus. non l'OLO d'abord, abord damay dama koy rafetlu dama koy l'eau si le président de la chaque année. mais c'est ça l'eau ah. moi mané la ne la dama koy l'eau le fait que le président de la république mu dem Touba. Hmm mu toog jotaay ak le xalif général Cheikh Mountaga Mbacké Bachir radiallahu anhu ñu toog wax ci man dama japp ni ci luy jëmale Sénégal ci ci kanam lañuy waxan waxaan mm. la ñuy waxtaan luy jëmale Sénégal kanam lañuy ñuy waxtaan foofu man loolu mooy sama yaxin parce que actuellement dañ ko soxla nit ñi ñoo ko soxla mm. pour que le président de la paix mu dem toog avec les guides religieux nous parce qu'il y a tellement de soubresauts dans dans ce pays il y a tellement sénégalais d'ailleurs xat Sénégal actuellement les gens sont crispés nous ñi mënuñu épanouir lu Sénégal nous ñi dañoo xat dañ leen tënk ci action moi tax la euh, rencontre bu melni ci diggante le président de la République ak Cheikh Mountakha Mbacké Bachir dafa dafa dafa bax lool. Mm. pour sénégalais ñu ngi ñaan lu tukkee ci fofu ci ci ci waxtaan boobu nañ ko jëfé mm. wala ñu xol lan lañu mëna def pour andi safara ci réew mi parce que man dama japp ni Cheikh Mountakha bu woyé le président de la République son excellence Macky c'est pour que ñu pencho xol lan mo doxul. Voilà lan la dans ce pays. parce que actuellement fan lañ hmm. avant que ça ne soit trop tard qu'elle souhaité wu ko il faut que il est temps nous mu le président de la République mu parce que n'est pas c'est pas la première fois ay président de la République ses prédécesseurs yàgg nañu toog avec les guides religieux nous waxtaan pour nekkin sénégalais yi ñu waxtaan pour yóbbu euh, Il y kanam yàgg nañu toog pour waxtaan ak les guides religieux maintenant aujourd'hui c'est pas la première fois le président de la République mu dem toog ak les guides religieux wala Cheikh Mountakha Mbacké Bachir ñu Tok waxtaan pour andi euh, saafara ci réew mi moo tax ma ne la man maay xaar ci euh, euh, njort bu baax ni que luy ñoŋal Sénégal la ñuy waxtaanee foofu liy tension bi la ñuy Fofu. foofu à moins que beneen camp bi moom ñoom ñu bañ a comment dirais-je jëfee loolu mais man en connaissant Cheikh Muntaka Mbake Bachir dama japp ni tay kilifa la kilifa bo xamantene xama xam ñi ñi ñaa ngi ah fokk ñu wax ñom ñu ngi wax. Euh, mais xam xama euh, xam tamit wax do imposer le président mom xama Cheikh Mbati Mountakha mënul imposer tay le président de la République mu def mom lu mu bëgg hmm. tu sais pourquoi parce que mom c'est un guide religieux. Qui, tamit euh, en tant que président de la République lui kilifa la tamit. xam nga kilifa tamit doo ko imposer yenn yi da waxtaan ak moom naaxante ak moom laayante biir ak moom loolu nga mën a def pour kilifa bi maintenant à moins que moom mu def wala mu bañ a def mais moom munoo ko forcer. moo tax sénégalais man gisuma en quoi sénégalais yi meree sëñ bi mooy nekk fii di wax naka sudul la mais sëñ bi mu ngi wax mu ngi def lu mu mën. mais tamit du weñ loxo euh, président de la bi mën a ko par force lii ngay def yow tamit ñi sénégalais fokk ñu réfléchir tamit par rapport à ça. alors c'est c'est clair par rapport à li nga la rencontre du xalif général de Mouride qui ki le président Macky Sall il est prévu afin de ramener modi Touba autre chose dans l'actualité madame monsieur c'est au Gabon quelques minutes après la division des résultats officiels des élections générales indiquant la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des suffrages exprimés un groupe de militaires a annoncé euh, ce 30 août 2023 à la télévision l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions ma kon fa na xamni ne it Gabon gina bu Ali Bongo mo daal génn si premier tour yi si 64 virgule 27 pour cent di jël juróom ben fukk ak ñent yu daal taftal toftal ak ñaari ñoo di ki modi Ali Bongo lu nu mel nak le militaire yi bëggul daal di dégg borol daal di jàpp ni nak résultat yi lepp la bu mu daal des lu mel daal di annulé yooyu xam ne moo élection waaye itam daal li nga xam modi institution institution yooyu daal koy xamlé sa télévision nationale la ginnaaw ba daal di yooyu dañ xam ne que mu di résultat pour rappel ko ba élection yi commencé woon ba tey tëjoon neen internet bi waaye toog neen ay fani fan justement xamuñu fan lay fii daal di war a mën a war a war a yëf war a mujj Euh, si yooyu de euh, élection mu nek lo xamni tam itam lol ay doute wala ay incertitude sëm si nga xam nekk modi askan wi nak à la dernière minute les militaires ont euh, intervenu justement indi fa ben coup d'état wàccee ko du sort li nga xam nekk modi ces institutions parce que japp ne nag ki nga xam nekk modi Ali Bongo seulement deuxième tour mu mais premier tour mënu ko am <coughs> exactement alors Arfan euh, aujourd'hui euh, la réaction spontanée euh, des militaires parce que d'accord, si ça si ça c'est tac militaire du coup c'était préparé d'avance si toutefois parce que tenir internet bi connexion euh, connexion bi ñom ñu tok 17 ans lu ñu def ñoom ñu 17 ans résultat la doon xaar résultat yi génn ñu daal am réaction spontanée bu ñu mel nako nako ko daal di exactement. euh ça revient à ce que j'ai dit sëñ Fallou li may faral di wax ne chaque jour ni nguur yalla mo koy joxe. Hmm bés bu mu koy fokkati dala la métti lool xam nga yàlla euh, ndeysaan euh, imagine la famille Bongo. cinq ans cinq ans de règne au pouvoir ñu fon ne dañoo dem ba jàpp ni Gabon sax seen moomeel la imaginez une famille qui a fait cinquante cinq ans de règne cinquante cinq ans du lu ndaw imaginez ku juddu xale bu juddu ba am cinquante cinq ans yow paa nga benn famille jël tout un pays Gabon def ko seen moomeel. 55 ans de règne Il y nangu ko ko ci ay anam jamais souhaité que ay militaires fokkati rew ci sa je ne souhaite jamais ça à un président musuma ko bien le président je n'ai jamais été pour le coup d'état hmm. mais attends il y a des coups d'état yo xamantene mais bien sûr on souhaite jamais du mal à quelqu'un on ne souhaite jamais un coup d'état à un président de la république jamais au plus grand jamais maintenant y a un coup d'état da ngay xam ni mais regarde l'état de santé de Ali Bongo mm-hmm. il marche à peine pour marcher il faut euh, comment dirais appuyer sur une canne il marche péniblement difficilement muy continuer di moy alors on a surveillé les élections au Gabon mais le gars, il peut pas être minoritaire au Gabon. Bon, peut pas gagner avec 55 ans. 55 64, Excusez-moi. Il peut pas être minoritaire au Gabon. Bon, peut pas gagner avec 64%. Hmm. C'est-à-dire qu'en âme et conscience, lors des campagnes au Gabon, nous, on l'a suivi. Moi, j'ai regardé les campagnes au Gabon, l'opposant, enfin, mais je dis, mais quand j'ai bima dégué résultat bi man ay ré la ma def fajar gi mais comment Ali Bongo le Dimba comment il peut être majorité au Gabon et gagner avec 64 lolou mo attention il a coupé l'internet il a coupé tout croyant que c'est la solution on l'a vu comment xewoon fi Sénégal ci les émeutes ba ma la lolu c'est pas une solution. le faire de couper l'internet de couper tout mais le fait que militaires yi toog di seetaan loolu lépp dem tok di seetaan. ils n'ont pas réagi. tu sais il a fallu que ñu xaar rek élection yi ñëw. tu sais militaire résultat yi génn pour ñu mën réagir. dina la wax ben affaire gis nga militaire il n'a pas les mêmes pensées qu'un civil dama lay wax lu am militaire amul même pensée qu'un civil la réaction de militaire militaire buy réagir du tàggoo alors que les civils bu ñuy réagir dañuy tàggoo dañuy dem déposer dañuy dem déposer lu ñuy woyal eh, demande d'autorisation de marche wala de manifestation loolu mooy civil parce que esprit boobu la am militaire amul esprit boobu démocratie amu ko militaire buy intervenir c'est de manière spontanée lay def moo tax nañu ñaan jàmm ci réew yëpp regardez en Nona, il y avait combien de coups d'état en Afrique en un an waxuma la espace de trois ans wala cinq ans combien de coups d'état lañu am en Afrique Lolu <laughs> moy wone que il y a une crise alarmante au en euh, en Afrique il y a une crise alarmante en Afrique. est-ce que yëf defuñu ko ben monnaie courante euh, ce qui est euh, dangereux. les gens ont horreur de la CDAO. les gens ont sont furieux contre la CDAO. dama lay wax lu am. Les gens ont un sentiment de haine envers la CDAO. C'est ce qui se répète actuellement dans les pays africains. Les dirigeants africains, Ils dañ leen Voilà la réalité. non mais c'est ça. ils ont ils ont leur mandat à terminer quand même. Mais je suis d'accord pour qu'ils terminent leur mandat. la mandat la population africaine il y a une ce qu'on appelle une ère nouvelle c'est-à-dire que l'ère nouvelle là en Afrique, de la population en Afrique, qu'elle ne peut stopper. C'est fini la France-Afrique. C'est fini. Que les Français, les Français même le savent, hein. les Français savent que la population africaine en a marre. Il y a un changement. Ça va continuer de progresser. Ça va continuer de progresser. à travers des coups d'État, parce que moi je ne suis pas pour, pour, pour les coups d'État. Mais en d'autres termes, d'autres stratégies, la nouvelle ère, révolution africaine, ça va continuer de propager. Les, Africains ont un sentiment, comme adresse, euh, euh, de haine envers la France. C'est-à-dire que la France-Afrique, C'est fini. Le peuple africain veut s'asseoir sur sa souveraineté. C'est-à-dire que, de nous, c'est nos ressources la France du nek fi di les ressources africaines depuis 1960 ñuy continuer du c'est fini jehna na nga xam ko nga bañ ko xam les les dirigeants africains là il faut que nous ñu ñu ñu il faut qu'ils reviennent à la raison c'est fini la France Afrique ku jël sa espoir ngonk ko reposer ko sur les bras de la France en tant que président de la République da nga nek di sonal sa D'un da nga nek di sonal sa la France ne pourra rien contre la, population africaine. Ce qu'on voit dans les armées africaines, c'est normal. L'armée doit être euh, une, armée républicaine. L'armée doit s'aligner aux côtés du peuple, que vaille, que ce soit les circonstances de la vie. Voilà les circonstances de ce pays. L'armée doit être debout et s'aligner du côté du peuple loolu la ñuy xaaree ci armée loolu la ñuy xaaree ci armée mais ce qui s'est passé quand aujourd'hui les gens condamnent tey la junte militaire au euh, euh, au Mali au Burkina en Guinée c'est parce que dañoo xamul. mais ce qui s'est passé au Gabon c'est parce que dañoo xamul. avant ce qui s'est passé au Gabon. ma ne da nga jàppoon lu waroon lu waroon nekk lu mënul ñàkk la lu mënul ñàkk la. imaginel armée jël nangu nguur loo xamante ne kenn sànduwul xeer kenn taalul pneu mais armée bi moo xëy de manière spontanée Dieu nguur gi tu sais pourquoi parce que ce qu'ils vivaient ils en avaient ils en avaient marre dañoo sonn Mbongo il faisait du n'importe quoi au Gabon askan Gabon ño dem ba sonn maintenant comment faire armée dem na ba que la population souffrait mota manela dit armée tay au Gabon def na lu gën def na lu gën souhaité ah, mais lu la def amana lélé da ngay gis ci famille ñu ne borom kër gi de mais yalla def na lu gën xam nga comprendre nga fi may dina tollu ci moment bo mu dem sax mo gënal nit mu de souffrir parce que quand une personne souffre tellement de sa maladie ñu ñu bari dañuy ni mu dem souffrir parce que buy souffrir da ngay ñeneen ñooy souffraale aussi à ta place da ngay partager souffrance bob avec tes enfants wala ak ñeneen parce que dañ laa faj faj faj ba amatuñu espoir ci continue de le faire souffrir dañuy jàpp ni que mu dem moo gën yàlla def boo moo tax boo gaañee ñii dañu ne ah ndeysaan moom moom de yàgg na ci feebar bi mais yàlla def na lu gën moo tax ma ne la aujourd'hui au Gabon militaire yi def nañ lu gën yàlla moo def lu gën jaaraale ko ci militaires d'une cinquantaine d'années 55 ans de pouvoir cette famille là ñu jàpp ni Gabon un moment là man Ali Bongo Odimba. mais enfin aujourd'hui est-ce que nous avons a pour foo d'organiser ni organiser élections ñu élections ne sont pas transparentes exactement est-ce que waruñoon dépasser si Bobo de xam Modi anam ak ak tamit seen condition le Gabon organisé des élections boo militaire militaires yi résultats sont des résultats fallacieux. xam boy organiser élection Boy organiser élection huis clos en huis clos noonu lañ ko des Jeune Afrique Non, la ñuy titré ak i ne clos clos sans internet sans rien tu coupes tout c'est en huis clos. c'était bien préparé. non mais ça ça dit que dafa namm leneen. Ali Bongo c'est-à-dire que lu mu def nii la namm sàcc élection yi. Si on couper l'internet au Gabon c'est pour que les gens ñu divulguent divulguer ce qui se passe actuellement au niveau interne c'est-à-dire que pour les informations ñu bañ alors que il sait pas en coupant l'internet au Gabon technologie vide. dafa n'y a tu n'as même pas besoin de couper l'internet en coupant l'internet c'est pas une solution Moi, je suis au Sénégal lors des manifestations quand ils coupent l'internet ils coupent TikTok ils coupent WhatsApp je ne la nous comprendre ce qui se passe actuellement au monde c'est pas la solution la preuve aujourd'hui au Gabon malgré que Ali euh, euh, Bongo a coupé l'internet a coupé tout est-ce que gagné sàcc na élection yi. ah ñu gagné na. non mais comment il peut gagner. résultat yi. comment une minorité. comment en tant que minorité lui. résultat yi non mais min dafa sàcc. Ah, ah, ah, dafa sàcc élection yi. mais loolu yow yaa ngi déduire noonu mais résultat li mu wax nee na gagné na. bu je regarde bu bu fekkee bu fekkee que élection yi. l'armée ne va pas dire euh, euh, arrêtez trop c'est trop c'est suffisant c'est pas c'est suffisant maintenant ça suffit bu fekkee armée bi tu sais que l'armée est républicaine militaire yi dafa militaire militaires c'est pas des civils ñom ñuy assurer kaaraange réew mom ñom ñuy assurer ñom ñooy euh, sécuriser sur sur euh, euh, scrutin bi. Mm. électoral bi. Mm. militaire yi ñokoy ñokoy ñoo sécuriser. élection bu jaaré ci yoon militaire yi xam nañu bu jaarulé ci yoon militaires yi xam nañu donc tu n'as pas besoin de couper l'internet tu n'as pas besoin de couper tout aujourd'hui ça lui a valu comme comme ça. Nous couper avec toute l'énergie dépensée pour couper l'internet couper tous les mécanismes de voix de communication couper le au Gabon aujourd'hui nous militaire militaire. la dissoudre tous les institutions jusqu'à euh, nouvel ordre Après frontière dissolution. voilà regarde ce qui se passe dans les images Militaire coupé aujourd'hui c'est la fête au Gabon la euh, euh, la télévision nationale pour annoncer la dissolution Voilà trop d'acharnement sur un peuple aujourd'hui les militaires dissous tout ñu jël nguur gi kenn souhaité wu ko maintenant loolu gàccee lay doon man ne la bul xam ñaata coup d'état la ñuy am Afrique en l' espace d' une année. Hmm. ñaata coup la ñuy am. Burkina jaar na fi Niger jaar na fi Gabon mu ngi nii ah ah excepté eh, eh, eh, Mali ak ak ak ak